gëm leen dina gën a baax ak góor gi dina neex li ñu naqari dañ la gisu toon bi yàlla andee féexal nga réew mi xéwal la ñu nii naataange ngi nii góor gi njëriñu neex boo xamoon senegaal bi mu jaar ba yegg si fii tey war nga gëm ne góor gi dañuy ji ngoy sa wax ju dëppoon nag say jëf lay dolli ñoo jëppoon ak fi jëf guddi wàccoon nga ñun guddi yéex nañu ca jëpp góor gi dolli ñu la manul waxtu yàqu la mu ngi def lu manul mag ay mata bàyyi ci réewoo góor gi yéex nañu ca jëpp góor gi yéex nañu góor gi dolli ñu dañ ko daan di nga naan góor gi njëtu ay la mu ñëw di fay ay ak a njëggalaat Darfour Guinée Bissau Madagascar Côte d'Ivoire ba Casamance adduna bi yëpp jóg di seede laay bu di jàmmam UNESCO woolu ko mu ñëw sargal ko prix u fekk waa ji fii firndeel ko góor gi yéex nañu cee jot national di ñu kaasal lépp suñ borom nangu na ko mbàkke na la leer na na boofee foofu noonu ñu koy boofalee feneen nag ñu kaasalee góor jigéen génnal ñu ko ñàkk fay ndoxum Touba noonu nga ñu fajale suñ lépp seen Cheikh. asalaamaaleykum mbokku ndaamaatu maa ngi leen di nuyu di leen siyaar kenn ku nekk ci turam ak santam tey nag am nañu mbégte mu rëy ndax mbégte bi ñu am mooy ñëw fekk ci fii soxna Sakki Fijoor ak sëñ Daymaan ndax liste bi nga xamante ne mooy list bu Abdoulaye Wade bi ci conseil départemental bi ñoom ñaar ñëpp bokk nañu ci list bi ay conseillers lañu. kon jàpp naa ne su ngeen ñu jàppalee ba liste président Abdoulaye Wade bi gagné ëllëg da ngeen am conseiller boo xamante ne dana nekk ca conseil départemental ba man leen di indil seen i doléance di ma ko gën a mën a jottali bu boobaa ñu mën koo gën a mën a fay kon loolu mbégte mu rëy la nun nag ki ñuy jàppale kenn la. mooy président Abdoulaye Wade taalibe Serigne Touba ba mooy ki nga xam ne mooy ki nga xam ne sëriñ Saliou da ko waxoon ne ko li ma la bëgg a ñaanal awma kenn ku ma koy diis ku may Serigne Touba kon jëmm ju mel noonu su yàlla dogalee mu yor pouvoir bi lu mu mas a am defal ko Touba bu ñu ko wooyee mu ne mbàkki ñëw sukk di raam bu falee gouvernement bala ñoo def dara ànd ak gouvernement ñëw ba ci kanam Serigne Saliou ne ko wax ma loo bëgg rek ma def loola kon jëmm ju noonu tey jii bu ay élection jotee murit yëpp war nañoo génn delloo ko njukkal wan ko ne ko doonu gën a gore ndax kii fi nekk tey li mu man def na ko mooy amalul njariñ askanu Touba faalewul ab sëriñ respecté wul kenn bañ na ko ba nga xamante ne jëmmi Touba tegu ko fenn moo tax ma jàpp ne ku ko fotel ku nekk war nga sëriñ Touba baneen ba ca topp mooy bërki démb rek yëg ngeen coow la ci assemblée nationale bi ñuy def réunion de bureau man la yàlla may tawféexu ma fekke ko bi ñu teewee li nga xamante ne ànd sàmm jikko yi indi woon nañu ko mooy benn proposition de loi boo xam ne dafay criminaliser góor jigéen seet si sëriñ Mountakha mu baax mii mu signé bind ñu dem seeti sëriñ si mën Mansour mu signé bind ñu seeti xalifa yëpp kenn ku nekk signé yow moo ci waaye da ngaa bind proposition de loi ñu di ko assemblée nationale ci biro bi ma porté ko ne leen bëgg-bëggu xalifa sénéraux yi bëgg-bëggu askanu Sénégal mooy ñu criminaliser li nga xamante ne mooy borom ñaari tur yi. député Macky Sall yi taxaw ne du fi am borom ñaari tur yi nañ leen bàyyi ñu libre kenn du leen criminaliser kenn du leen teg ay daan yu mel ma jàpp ne kon loolu fu mu amee askanu Sénégal war nañoo xippi seen i bët ndax ñun ay jullit lañu dañoo war a taxaw ci li nga xam ne mooy bëgg-bëggu Serigne Touba. ca leer na ma ne bëgg-bëggu Serigne Touba mooy góor jigéen bañ fee am kon nag ñun ñëpp war nañoo jóg taxaw xeex loolu pour mu bañ fee am. la ca topp it mooy sant naa yàlla sant Serigne Touba ndax ba ma taxawee ca bureau ba bañ ba ma xëyee suba Serigne Moutala sëñ Mountakha Mbacké jàppale na ma ca ndax génne na ab communiqué wane ne àndul ci góor jigéen tey àndu ci tey àndu ci tey àndu ci ëllëg ca góor jigéen du fi am kon nag loolu sant naa ci yàlla. kon nag ni ngeen di mën a faye ko mooy wax leen ak nit ñi carte Macky Sall bu ko nit laal bu leen leen ko foteel ndax dama jàpp ne kenn wuñ ko fote jël leen ko ci conseil départemental bu ngeen ca àggee lem leen ko jël bulletin PDS bi voté ko bulletin fas ba fa nekk ngeen jël ko xotti ko su ko defee bu boobaa delloo ngeen jukkal président Ablaye Wade fal ngeen Cheikh Bara Dolly fal ngeen Sakki Fidior fal ngeen sëñ Dayman ak ñi ñoo àndal ñoo ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum am wàllu jàkka ji wàllu jàkka ji itam dinaa ci dugal sama loxo ndax laaj naa sëñ bi ni mu demee xam naa ni mu demee dinañ ci dugal seen loxo ba nga xam ne dugal nañ ci seen loxo incha allah diine rek a ñu ñor diine rek a ñu baax na jërë ngeen jëf asalaamaaleykum. neex nañu cee jàpp góor bi dali ñu ko jëriñoo mukk te tojuloo ko socce yaa ngi nii foo jaar ci réew mi teg ci sa bët weer di gis bokku ca ku yar ca ba ngay daw xale boo ko bëggee di ko aar yar ko jàngal ko la case sëñ Fall yal na la njiglaay yal na doon sa njiglaay te nga gagné fii ndindi gii lii ak département Mbacké Touba gubu xob yi la ñuy batee ndax mooy moo am jom moo jëm kaw barke sëñ Touba gubu xob muy bay dugub ak ceeb lépp muy muy Cheikh Baara Doli moom Baara Doli dëkk xayra na ngeen ko wateel yéen waa ndindi nag yéen sëñ Fall rek ngeen bëgg ak Baye Karim Mbacké ànd leen ak Cheikh Baara Doli moo yore affaire yi ba tey bàyyiwuñu ko dañoo gën a feddali suñu laxasaay ndax yow bañ la bañ la amee ba tey ñàkkunu dara fa nu tegoon suñu rek noonu teg suñu diggante fii daal li ñu di sëriñ Fall daal na la leen sa dal loo wax la wax loo waxul waxuñu ko noo ngi barke sëriñ Touba ca rek ca kanam bala sibir sëñ jërëjëf jërëjëf bismillahi rahmani rahim li sadri wa yasar li amri wal uqdatan min lisani yafqahu qawli asalaamaaleykum mbokku Ndindi maa ngi leen di nuyu tey am nañu mbégte bu ndax bi may ñëw it maa ngi ànd ak Serigne Assane mii di sëtu Serigne Fallou kon nun tey dañu ñëw suñu kër ndax ku tudd Serigne Bara Doli Mbacké tudd Serigne Modou Boussa Dieng ku ko tudd tudd ko lii tey ñu nekk tey jàpp naa ne ndigalal moo Modou Boussa Dieng la ndax Serigne Modou Boussa Dieng moo jëloon Serigne Bara boole ko ak Abdoulaye Wade ne na ko na ko jàppale ndax boo ko jàppalee président am Wade dana nekk président de la république yàlla boole leen bi mu demee ba doon mag man ñi ma dox ca tànk yam doon dox mooy fas yéene jàppale Ablaye Wade jàppale Karim Wade nun nag dañu jëm ci ab élection muy conseil départemental yàlla dogal Abdoulaye Wade tànn ma mooy list bu mboq bi nga xamante ne moo am gubu dugub bi ku ko voté votel na ma votel Abdoulaye Wade votel Karim Wade waaye liste bi na xam ne mooy listu taalib yëpp Serigne Touba ba na ngeen moytu liste bi nga xamante ne mooy bopp fas bi ndax ñooñu dama jàpp ne ku leen voteel war nga Serigne Touba ndax ñooñu bëgguñu Serigne Touba bëgguñu diine bëgguñu Touba tey jafe-jafe yi ngeen di dund kenn rek leen ko teg muy Macky Sall kon nag. tuubati njëriñ a ngi nii te lépp si day fexe la xale yi bu ñu màggee ëllëg. raw seen maas góor gi yéex nañu cee jot nañu cee jot góor gi dolli ñu def ko ci éducation lu kenn deful plan REVA bi béykatu réew mi naw nañ ko plan jaxaay mbaa ngi gaayaa ngi nii te ci nañu ey bu démb doon tey góor nañu cee dix minutes ca jot kon dañu ñëw Sénégal moo raw ci réew yi Afrique 2006 fi nu jëlee fi mu ñu ko gën nu jëlee di sant Serigne Cheikh Mbacke Bara Doli ci lislaam gis naroon a sëngeem barki démb mu siggilaat ko loolu ñu ngi ko ci sant bu baax a baax a baax a baax waaye nag dañ lay xamal ni la fii nga ñëw deritu PDS moo fi nekk fii waa kër Abdoulaye Wade dong ñoo fi nekk lii may wax fu ma neex mën naa ko faa taxaw wax ko fa waa kër Abdoulaye Wade dong fi nekk boo gorewul moom mu gorey kii ku ko bañ di nga torox Mbàkke balla ay sa buri sëriñ Mbàkke maaram yàlla yàlla guddal fan wey waral laay maa ngi leen di nuyu teg ko ci loxoy Serigne Fallou njaay mii mu tegal ma ko ci loxoy waajuram wu tedd wii ñu fi fekk nga xam ne mooy délégué de quartier bi kon dama leen a ñaan buñ ci àggee list boobu bu ko kenn voté na ngeen voté zone bii nga xam ne moo am gubu dugub bi ci digg bi xam ngeen ko muy listu seen mbokku taalibee président Abdoulaye Wade muy liste bi nga xamante ne man la tànn ma jiite ko comme ni ma ko jiite woon 2017 gagné département bi gagné marron bees bi duma leen duma yu rëy duma yooye lay xaaraat nag bii di ñëw duma yooye ma duma waat leen duma yu raw yooya góor gi dolli ci ku neex su daf may xëy yàlla bu fa saay-saay bi bon bi jaar ba xorom ko yàqal ñu ko loolu ko nangu loolu ko nangu loolu duñu ko nangu duñu ko nangu góor gi dañu ci may góor gi dañu ci may góor gi dañu ci may góor gi dañu ci may góor gi yéex nañu cee jot yéex nañu cee jot xanaa di la ñaanal gudd fan ak wér xanaa di la ñaanal nga yàgg fii yéex nañu cee jot yéex nañu cee jot góor gi doyalu ñu soppit dolli góor gi doyalu soppit dolli góor gi doyalu soppit dolli góor gi doyalu soppit dolli ñu Serigne Seck moo bari doole kon bulletin baa ngi nii mooy kii xeex Assemblée nationale député bu mag bi moom la Abdoulaye Wade tànn ci département bi ngeen ko xool bu baax juróomi kan léegi ndax bëgg ngeen a gis sëñ Cheikh Bara Dolly léegi damaa bëgg sëñ bi génn moo tax dama naan ko génnal Serigne Cheikh génnal génnal Serigne Cheikh génnal génnal Serigne Cheikh génnal génnal Serigne Cheikh génnal génnal Serigne Cheikh génnal dam laa bëgg a gis génnal sëñ baa ngi nii ñu sànni ay kaddu sëñ baa ngi nii ñu sànni kaddu boo doon xeex mbiru góor jigéen asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokku Mbacké Bary ñoo ngi leen di nuyu di nuyu Bagdad 2 di nuyu mbooleem ñi nga xamante ne ñi ngi taxaw fii di leen wax ne bu ñu àggee la 23 na ngeen votel Abdoulaye Wade sanctionné Macky Sall Macky bu mu am dara parce que Macky Sall dafay jàppale góor jigéen ñi kuy jàppale góor jigéen kenn waru laa votel ati ndax Serigne Touba bëggu ko l'islam bëggu ko sëñ Mountakha bëggu ko kon nag bu bis ba na ngeen listu Macky pour que ñun ñu am victoire delloo ndukkal Abdoulaye Wade taalibe boo xamoon Sénégal fi mu jaar ba yegg si fii tey war nga gëm ne góor gi dañuy ci ngoy sëñ Fallou fi nekkoon ñoom lañ foloon ndax Abdoulaye Wade defu fi dara na dem a dem a dem waaw na dem léegi si Cheikh na dem kii ñëw moo nu taxawal assemblée gis nga Fally Diallo lim dox góor jigéen ñi suñu xool sedd ci guyu yal na ko yal na jox département bi ci barkeb sëñ Fall amiin amiin barkeb sëñ Touba sama xol dafa sedd ci moom mooy pencum sëñ Bassirou Sarr sama xol sedd na guyu bu soobee yàlla góor jigéen mag ndaw daañu la jàppale li nga bëgg da nga ko am fii moom Abdoulaye Wade dafay gagné yaa fiy gagné ndax liñ bëgg ca assemblée ba yaa nu ko defal yaa fi dàq saytaane fas yi nga xam ne góor jigéen dafa bëgg a samp ci réew mi suñu doom yi yàqu ëllëg suñu jigéen ñi yàqu nekk lesbienne duñu ko nangu duñu ko nangu tey duñu ko nangu suba nun xooluñu ku ñu joxe saakuy ceeb xooluñu ku ñëw di nax suñ jigéen ñi xooluñu ku ñëw di nax suñ mag ñi ku xeexal yàlla xeexal yoon bi xeexal sëñ Tuubaa lañ bëgg sëñ Tuubaa xeex na ba gàñe yorul jaaseeg fetal kenn mosu laa dégg assemblée nga saaga kenn mosu laa dégg assemblée nga wax fa lu ñaaw kenn mosu laa dégg assemblée ngay dóorante saa soo waxee man damay dégg discours 1976 laa dugg parti socialiste du du léegi sarak fekk ma New York mooy président Fata daayira sëñ Fallou bi nu nuyoo fa yàgg na loolu du léegi yow maa ngi lay suivre bu baax a baax ba extérieur ak fii saxal fi nga sax bu soobee Serigne Touba li nga bëgg da nga ko am te doo ni sa baay doon gañee muy sëñ Baara Dolli lu mu amoon yàlla nga am lu ko moom laa lay ñaanal man sama xol seen na coow bu baax jox naa leen sax sama numéro dinaa la wëral koñ bi subaat ngoon du ma bàyyi nag parce que je suis dans le tout le groupe je vous montre aussi euh, PDS voilà ça voilà c'est bon c'est bon voilà ko aar yar ko jàngal ko la case des tout petits njëriñ a ngi nii te lépp si day pexe la xale yi bu ñu màggee ëllëg raw seen maas góor gi nañu cee jot góor nañu cee jot góor gi dolli ñu def ci éducation nationale lu kenn deful plan. képp koo xamante ni da ngaa jug taxaw ni dañuy xeexal li nga xamante ni mooy deux pistes fii ci dëkk bi. képp kuy ab jullit rawatina doonu murit rawatina doon Baay Faal danga ngaa war a taxaw ngir loo xam ngir jàppale ki nga xamante ni day xeex loolu ñun ñu sa ginnaaw am yaakaar ci yow. xam nañ taxawaayam bu baax ci assemblée ndax moom kese moo mën a taxaw senegal ne man kat bañ ne góor jigéen man maa njëkk a taxaw ne góor jigéen amul place Sénégal kon suñu mbokk yi góor ji ki doon wax léegi ki jiite jeunes yi. nañ dalal suñu xel am nañ fa représentant bu man représentant am nañ fa ku ñu fay teewal koo xam ne drapeau l'islam téye na ko ndax kat ñu daan xare ca jamono yonent bi salallaahu alayhi wa day am koo xam ne moo daan téye drapeau bi kooku tànk euh, daane luñ ko rek xare bi day wan ne victoire bi ñoo ngi ci ñun ba pare kon donc comme ki nekk yor drapeau bi moo ngi téye drapeau bi ba léegi rek jàppale ne lislaam am na dam Sénégal te drapeau bi moo ngi flotté ba léegi kon ñoo ngi koy ñaanal yàlla kàttanal ko may ko wér may ko gudd fan. liñ leen di woo nag mooy conseil départemental moom ay njariñ yoo xam ne moo ngi waroon dëggu ci dëkk bi boobu ba léegi mbooloo mi jàpp naa ne bu ñu leen laajoon lan mooy conseil départemental sax ñu bëri duñ ko xam loolu nag li tax xamuñu ko mooy gàccee la ci équipe bi fi nekkoon gàcce la ci président bi nga xam ne moo yore conseil départemental di laajaat kooku nag ku ko sànnilaat mooy dangay ngay ne suñu xale yi nga xam ne ñooy du juddu ginnaaw bi duñu xam lan mooy conseil départemental. ñaareel mooy beneen liste bi nga xam ne mooy liste bi nga xam ne mooy bokk fas ci la nekk te Macky Sall jiite ko liste boobu jàpp jàpp leen ne góor jigéen yi lay dooleel xaalisu góor jigéen la ñuy campagner jàpp naa ne lekk ci xaalisu campagne boobu sax araam na ndax képp koo xam ne day taxaw ne góor jigéen laa bëgg a daganal fii Sénégal xeex ko day doon farata xeex ko day doon jihaad te jihaad ku ci dee da ngaa wàcc kon donc ñoo ngi leen di ñaan ngeen boycotté liste boobu yéen ñëpp ngeen voté la coalition massivement coalition wàllu Sénégal coalition wàllu Sénégal nag bu ñu ko voté mooy delloo nañ jukkal ab laay Wade ndax Touba ak laay wadd histoire bu yàgg la bu may lim ay réalisation yi nga xam ne Ablaye Wade moo ko fi def sax duñ fi jógee te jàpp naa ne suñ mag yi fi nekk xam nañ bu baax lan la Ablaye Wade jariñ Touba xam nañ bu baax kóllëre gi dox diggante Ablaye Wade ak Touba xam nañ bu baax kóllëre gi dox ci diggante Ablaye Wade ak suñu sëriñ si xam nañ bu baax kóllëre gi dox diggante Ablaye Wade ak sëriñ Saliou kon donc ñun nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ndax Ablaye Wade ñun lay déglu résultat Touba kese moo ko ñor ci élection yi élection yi ñëw résultat yi ñu am fii ci département Mbacké kese la Ablaye Wade déglu kon donc nañ fexe ba bu koy dégg duñ ko rusloo te ñam moo tax may ñaanaat bu baax a baax a baax ne nañ ko siggil à 80 pour cent nañ voté liste bi te ñun son nañ sonni waxuma dara waxuma ñi teew ñu voté de mais nañ fexe ba ñi nekk ci kër ñu fexe ñu voté bi damay voté ba pare wax sumay waa kër ñu voté liste bi loolu mooy liggéey bi yéen ñi teew fii waxuñu leen waaye ña nekk nañ fexe ba bu demee nekk ay relais yoo xam ne dañuy fexe kër ya ñu teel a jóg balaa 10 ñu voté liste bi ñu gañe ba nga xam ne li ñu namm ci dëkk bi mu ko ji yéen jigéen ñi mu ko ci xale yu góor yi sëriñ Cheikh matale ko ndax ñëpp xam nañ ne Touba jigéen ñi soxla nañ ay formation bu baax a baax a baax ñëpp xam nañ ne Touba jigéen ñi soxla nañ ay financement bu baax a baax a baax ñëpp xam nañ ne Touba xale yi soxla soxla nañ jàng bu baax a baax a baax ñëpp xam nañ ne Touba xale yi soxla nañ sport yi teewoo lañ sport waaye xamuñu luñ koy fu ñu koy defee xamuñu nan lañ koy defee parce que ñi fi nekk collectivité locale yi fi nekk jàppale leen ci sport bi ñu def xale yi jàng conseil collectivité locale yi fi nekk jàppale wuñ leen seen njàng mi. kon donc nag ñun suñu programme dañ ko dañ ko suñu programme dañ ko dër ci njàngum xale yi bu baax a baax a baax ci financement jigéen ñi bu baax a baax a baax ci formation jigéen ñi bu baax a baax a baax ndax jigéen ñi boo leen formation boo leen formé kat formé nga réew mépp ndax jigéen ñi ñooy école yi te jigéen ñi ñooy réew mi. kon ñoo ngi leen di ñaax bu baax di leen woowaat di leen ñaanaat ñu wotee liste bi nga xam ne mooy bulletin bu zone bi ndax bulletin bu zone bi yàgg na fee ñëw xam nañ ko bu baax waaye dañuy fàttali bulletin bu zone bi am gubu dugub bi nañ ko voté dugal ko ci enveloppe yi te bu ñu colee enveloppe yi dugal ko urne yi élection yi nag ñaari yoon lay doon dañuy lo dañuy voté élection maire bu ñu paree ñu voté élection départementale waaye nag loolu lépp ci benn bureau bi lañ koy voté boo duggee ngay voté ñaar yoon yëpp door a génn élection yi nag dimanche bii di ñëw la dimanche bii di ñëw la xayra seeni bureau fi mu nekkoon ba léegi soppeekuwut mooy fecce usine xorom ba lay amee kon donc nañ teel a ñëw 18h lay la ñu tëj bureau yi nañ fexe balaa 18h ñëpp dem voté yi incha rab yi monsieur Lo ak ndey Bousso danañ fexe ba fii ñu teg fi kaar boo xam ne koo bëgg a voté ñu dugal la ci kaar bi nga dem voté ji ñëwaat ci jàmm xeexuñu nag xuloowuñu ndax ndam boo ko amee ba pare da nga koy sàmm sécuriser ko kon donc ñoo ngi woo ñëpp ñu gën a dal gën a bàyyi xel ci li ñuy liggéey ñu dem dànk ci bureau ya voté ndax loolu mooy xeex boo voté rek jàppal ne xeex nga boo voté rek jàppal ne xeex nga kon te xeex bi dañ ko war a gañe ñoo ngi ciy woowaat ñëpp di ci encouragé waat ñëpp di leen jaajëfal bu baax a baax di kontaanaat bu baax ci yéen jëre ngeen jëf